kawoon nekk dëkk bu bari taarix lool lan mooy kawoon fan mooy kawoon ñan ñoo sosoon kawoon gilee ñu daal di xam ne ci émission bi di xam sa réew Leral TV ak équipe am gilee daal di dox ba ci dëkk woowa xam lan mooy taarixu dëgg-dëgg kawoon ak lan moo ko indi ñu ànd ceeg ñoo xamante ne seen xel daa màcc lool ci nimel ñu nekk ca gox ba ak ñu nekk ca gox goxaat ya maa ngi tudd Babacar Faye euh, maa ngi dëkk Kahone waaw mu amoon ay gëstu yoo xam ne nag euh, waa Leral TV dañ ko bëggoon ci Kahone euh, mu jëm ci Kahone kawoon nag muy dëkk cosaan boo xam ne nii tey Kahone mu ngi ko créé en 1493 en 1493 la Kahone la la tudd Kahone le premier roi bi fi njëkk a fal muy premier buur bi fi njëkk a fal ngi tudd Mbégane Ndour Mbégane moo fi njëkk a falu ko woon di fi faloo mu ngi fi fekk benn laman parce que du ma ne buur ay laman la euh, mu nekkoon Alibana musa Sall Alibana Moussa Sall moo fi nekkoon samp fi nag diine te boobu vraiment ko woon cedd gi moo fi ëpp waaw ceddo ji moo fi ëpp ay libaana Moussa Sall moomu nag sonaloon ceddo yi lool te Mbégaan Ndour waroon naa ñëw parce que mission la woon boo xam ne daf ko waroon a dox si parce que daf ko tënkoon tonton sasante ko ak waa Kawoñ sasante ko ak papaam bi ko jur waaw muy Marga Thiaj Ndour. Diallo Seck connu sous le pseudonyme de un communicateur tradi moderne dans la région naturelle du Sine et du Saloum. et bi vis ak à waaye nag fii ci Saloum bu ma nee Sine ak Saloum le Sine moo jur le Saloum à telle enseigne que fii nga ñëw tey muy Kaolack kawoon gii nga gis c'est la capitale historique et même culturelle du Saloum parce que Kaolack fi mu toll célébé yoon la diversité culturelle diversité religieuse lépp daje fi muy célébrer yoon bu mag boo gisee tamit ci Saloum l'histoire du Saloum est riche et pleine d'histoire parce que euh, bataay yu bari am na fi lu mel ni la bataille de Sélik la bataille de Cikatjéri la bataille de Tannaba la bataille de Guy Njulli ak la grande bataille de Pathé Badiane bi nga xam ni boo dee dégg quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans c'est à cause de cette bataille parce que ma Diakhou avait convoqué plus de 1000 familles religieuses, c'est-à-dire les troupes musulmanes contre les forces qui étaient avec Pinel-Laprade. C'était le 30 novembre 1865 dans la plaine de Pathé Badiane diggante Kër Kab ak Kër Souley Thiam. Kahone capitale historique capitale culturelle du Saloum ndax li ko waral buur Saloum boo xam ni mosoon ngaa falu rek yaa ngay dëkki Kahone. donc boo gisee ñu jàpp ni Mbégane Ndour moom mooy premier buur Saloum c'est parce que Mbégane moom lañu fi njëkk a répertorié waroon naa ñëw parce que mission la woon boo xam ne daf ko waroon a dox si parce que daf ko tënkoon doon sasante ko ak waa kawoon sasante ko ak papaam bi ko jur waaw muy Marga Diack Ndour léegi ci kaw loolu la ñëw dëkki coofak coof ak cofor lu la tudd dafa ñëw ñaan buur Lamin bi fi nekkoon mooy indi benn Moussa Sall dama bëgg fu ma moo indi coofak bu kaw ak bee coofak boobu gëw na ko moom loolu foofu la Mbégaan Ndour coforloo waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal ba dal di fexeel ki nga xam ne mooy Elibana Moussa Sall dal di ko rey mystiquement mu dal di dëdd mu dal boo gisee ñu jàpp ni Mbégane Ndour moom mooy premier buur Saloum c'est parce que Mbégane moom lañu fi njëkk a répertorié parce que tout simplement sànq dama ne la le Sine moom moo jur le Saloum durant la guerre tribale du quatorze quinzième siècle dans le Ngabou en Haute-Casamance il y a eu une invasion de Massa Wali Dione Mané qui est venue dans le Sine moom bi mu ñëwee Sine il a imposé son autorité ba nga xam ni population locale bi facilement ñu accepté ko waaye bi muy ñëw dafa ànd ak trois sœuram Ambekamaan Kula Romewu ak am Ambekamaan nag dafa amoon góom ci tànk bi ñu nekkoon nag Massa Wali Jonn Mané bi mu ñëwee mi ngi sampoon capitale bi am Mbissel c'est par la suite Waagaan Kumba Sandial moo ko transféré à Euh, jaxaaw ja jaxaaw siin alors Mbekaman ci doomam yooyu yu mu amee plaie bi ci tànk bi ñoom ñu daal di dem dans un village séeréer qui s'appelait Mboudaay Mboudaay séeréer fa la ñu fekk Mbarka Caaj Nduur jël Mbarka nag mu indi faj am Mbekaman ba góom bi ñu may ko ko jabar mu am ci ku ñu naan Mbegaan Nduur Mbegaan moomu bi mu ñëwee nag dans le Saloum parce que bul fàtte ni fii ñetti sërëm yooyu dañu continuer jël ce qu'on appelle un régime matrilinéaire mooy maanaam ku ne da nga topp sa néegam day loolu moo tox siin jur saalum jur kulaar jur badigu bi ñu ñëwee kawoon mu ngi fa fekk benn tukulóor boo xam ni daal tekruur la jóge muy doomu ki nga xam ni mooy Ali Elibana Moussa almaaba Elibana di nga dégg xalamkat yi di ko way mhm. bi mu fa ñëwee nag am na ku tudd Mbàkke Mbéri Ndaw moom moo jóge dans le Ndoukoumane lorsqu'il est venu moom mu imposé wu comme bëlëb parce que dans le Jolof y avait les Nians les Ndiaye et les Ndaw les Nians c'était les gardiens du Tata c'était les bërgal ma kura nga ñëw ci Ndiaye yi ñoom ñoo daan falu c'est les descendants de Albouri Ndiaye ci kiliki njigaan njigaan sare sare njaajaan Ndiaye tu vois alors moom Mbacke Mbéri Ndaw bi mu ñëwee ñoom ñëpp nag ñu taxabu mais euh, turu Saalum mi ngi jóge moom Mbégaan Ndour bi nga xamee ni marabu tukulóor du tuddoon Saalum Souaré daf ko loon benn saafara pour la délimitation de son de ses frontières. guy njulli mais man man guy njulli dafa nekk guy goo xam ne euh, mooy le baobab de circoncis. amoon nekkoon guy goo xam ne tamit dañ fa doon ñaanlu nekkoon guy goo xam ne tamit toolu xare la woon champ de bataille en quelque sorte donc guy njulli dañ fa doon ñaanlu boo jaaxlee dem ñaanlu fa dañ fa doon fale buur dañ fa doon euh, jongalee nit dugulal dañ fa doon former nit di des soldats. mu amoon guy goo xam ni moom lañuy wax guy njulli en 1862 bataille ba fa amoon diggante Makoddu ak Samba Lawbe Makoddu ba mu gàddaayee daal di dem fële nga xam ni mooy Kajoor ndax fii Saalum waroon na fee falu waaye tubaab bi affaiblir ko foofu mu ne léegi danaa dellu Saalum gëm a ñëw moom Makoddu bi mu ñëwee nag fekk fi Samba Lawbe saalum saalum yi bañ na duñ ko fal ndaxte ba palu jotee dafa toogul dafa demoon Kajoor léegi mu ñëw bëgg a kii fii ñu daal di bañ ànd loolu moo gën a waral la bataay de Guy Ndjili 1862 fii ci kawoon <clears throat> ma ne la guy googu dañu ne mooy cimetière mythique de griots lieu d'intronisation des rois lieu aussi de circoncision moo naam guy njulli fa lañ daan falee buur yi am na géwél yoo xam ne bu ñu wàññi ko fa lañ leen daan denc ba pare tamit buñ daan dugal xale yu góor yi lël fa lañu ko daan defee buur Saalum bi bu ñëwee dana am lëg jaraaf boo ñëwaan da ngay ñëw taxaw grand jaraaf bi interroger la bu la interroger nga yéeg ci guy gi bànqaas bi nga xam ni moo ci gën a mag nga dem ba ca catu guy ga def fa sa mbébét dellu si waat boo ko réussir ñu mën a xam ni yow sa pal nar naa neex wala naruta neex soo fa jógee nga dem fanaani benn dëkk ci yoonu ngene ngengeneew bi côté Ngéelu defe naa Ngéelum la tudd nga boo paree nag le lendemain ngay dellu si nag ñu solal la xàpp gi takkal la yëfu buur yi fëgg junjung yi nga ànd ak ñoo nag dem ca guy ga ca péncum kawoon nga daal koy wër juróom-ñaari yoon mu doon tamit buñ toogaan juróomi at wala juróom-ñaari at ñu dajale ci gox bi yëpp xale yu góor yi nga xam ni kenn duggagu ci lël gisagoo mbaaxu góor ñu daldi leen dajale dafa leen lël léegi tamit foofa ca paxu guy ga bu géwél bu tekki génnaan àdduna fa la ñu ko daan dugal fii lañ doon doon jongalee buñ ci paree ñu former la nan lañuy yéegee fas nan la ñuy xeexee yéeg fas di xeex nañ la ñuy téye euh, saamaar boo xam ne da koy téye pour mun ci rey nit nan la ñuy doxee doxin comportement nan la góor war a doxee parce que góor nekkul ne góor mu la neex rek ngay doxee góor dafa am doxinu góor dafa am wax la diction d'un homme nan la nit war a waxee kàddu gi nan la nit di yoree nguur kon école la woon loolu moo ëmb guy njulli ci côté boobu beneen côté bii tamit ma ne toolu xare la woon champ de bataille pourquoi champ de bataille parce que xare bu métti moo am diggante bàyyi ak doom mu nekkoon Makodou Fall moo nekkoon baay Samba be Fall mu nekkoon xare bu métti xare bu daw daw yaram parce que nekkoon ci diggante war a jox nit ñëpp ñu naan mooy yaayi Samba be Fall nekk jabar ji Makodou Fall bu joxee ñiy ndox ñu naan mu daw jox ñee ndox mu nekk lu daw yaram mais waxoon na ko ne siyal naa la siy bu rafet mësuma laa moy mësuma laa def lu la neexut soo ma tooñee ma baal la bu ma la tooñee baa jéggulu la même yow sax boo ma tooñee sax man ma ñëw jéggulu la kon nag gisuma ne yow di nga mun a rey suma doom du am ba illaa yow mi te looloo am ba Samba Law bi moo mu jore lu tax loola li ko waral mooy Makodou Fall dafa waroon a falu fii Saalum war a falu fee ci Kajoor bi waree falu Kajoor fa war a falu Saalum Saalum soxla ko mu bàyyi mu boddi waa Saalum dem falu ji dem de Kajoor bi mu demee nag malheureusement faluñ ko ñu fal benn doomu baayam mu nekk lu ko mitti fii nag ñu jëloon Samba bi muy doomam dal di ko fal jàppale ko ba mu sampu bi ma xamee ne falul foofu mu doon ne day jël si nguur gi damay jël si nguur gi mu ne ah nguur gi nag suma bakkan laa ci teg bàyyi gor su ne gor la mun a doon bala Saalum soxlaa daga dem won leen ginnaaw Saalum soxla ma fal ma kon nag nguur gi bakkan lay laaj looloo moo waroonoon xare boobu ci buy buy njulli loolu tax man la foofu tamit toolu xare la tax ma ne lay tamit foofu dañ ko fa doon ñaanloo <coughs> c'est vrai dañ ko doon ñaanlu parce que dafa amoon benn jaan bu mystique bu fa nekkoon jaan boobu soo fa defoon li nga fa doon def soow génn ko di nga jébbu li nga xam ne moom nga soxla bu xare masaana am war nga bëgg a def dara danga doon def foofu ñaan lu fa ñaan boobu yàlla da ca doon ànd loo tax ma décortiquer la noonu mooy guy njuli leen lat ci lor bajaat de suite ainsi de suite ci buur saalum yi nag di nga dégg sant yu ne waaye di nga dégg Euh, ndaw sandene aram faxa bëlëm mi ci ndukumaan koddu bige Linguère la ñaxana mbooj Linguère la donc c'est la famille des Linguère ñoo daan meññi buur Saalum bu sa ndey nekkulee gelawaar Linguère doo mën a falu buur Saalum bi nga xamee ni loolu am na loolu moo tax nga gis buur Saalum yi sant bi mun a def mais boo demoon dans la kayoor depuis le lële fuli pak nga ñëw ci Déthié Foundiougue Amari Ngoné Sobel Tous les damels son des Fall, les trente et quelques damels, sauf Lat Dior Diop, qui l'a hérité d'une manière matrilinéaire. Parce que Lat Dior, ndeyam Ngoné Fall moom mooy euh, Linguère bokku ci lignée boobu mu ne ko mën naa ko jël. Paro Mbaj moomu nag moom lay suuloo foofu parce que dafa pacte bu ñu signante woon moo moo Buur Saalum kii dagg deretam kii dagg deretam te géwél la woon waaw tax géwélu ko woon ak yeneen géwél yi bokkuñ. seen géwél yi dafa bëri ay façon façon façon géwél fii ci biir Kahone dafa am ñoo xam ne ay fare jujum lañ fare jujum mooy ki nga xam ne mooy tëgg jujum mooy tambour de guerre bi nga xam ne ni tey boom la ñuy dóor ngeen demee ko xare am na ñetti bàkk ñetti beddi bàkk bi mooy rythme bi nga xam ne ni moom la ñu doon wax muy ñu rëng ja rëng mooy genre cadence de guerre boo xam ne comme soo gisee armée ñoom ni seen seen tambour yooyu ñu tëgg noonu ni ñu koy tëggee presque cadence boobu ñuy doxee bii tamit ko woon yi tamit am nañ cadence de guerre boo xam ne moom la ñuy xareejee bu ñu jógee foofu am na beneen tëgg boo xam ne xaykum la mooy euh, euh, rythme rythme des jàmbaar benn rythme la boo xam ne boo ko tëgg yi nga xam ne góor tëgg da ngay samp sa xeej wane ne man def naa lii def naa lii def naa lii la ma waxoon sa soo woon ko ak saalum def naa ko am beneen boo xam ne ni gàmmu lañ koy tuddee muy woo day kooku dañ koy fecc kooku nag bu jógee kii boo gañee li ñuy gañee nag boo gañee seen yar nag daal di ko feccee noosee ko muy les trois rites des tambours de guerre de Kawoor ñooñu ñi ko yoree nag ñooñu ay kilifa lañ parce que bu xare amee jaam ya ñuy jàpp buur Saalum day am ay jaamam buur géwél bi am ay jaamam ñooñu ñuy ooyee ñuy jaamu géwél géwél bi jaam géwél lañ leen di ooye ñooñu ay géer yu set wecc lañ wala ay doom yu bu dañ daan jàpp ci xale yi ñoom du ñu woyaan du woyaan géer parce que ay géer lañ mais géwél bi la ñuy woyaan tu voilà différence entre les griots yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora ci biir Sénégal ak yeneen géwél yi nekk biir ko duñ benn bon jaam yi nga xam ne dañoo jàpp jox jox ko buur jaam yooyu ay jaam gàllawaar lañ kon ñaari jaam yooyu ñoo am jaam géwél jaam geelawar amul keneen ko mun a am jaam nag ñu moot ñaar ñaar ñooñu seul le griot kese boo mun a taxaw ne man gor gu set wecc laa géwél rek moo ko mën géwélu kawoon nag laa mun a wax xaw ma yeneen géwél mais géwélu kawoon moo mun a taxaw ne man gor gu set wecc laa xam nga li tax kenn du ko jàpp ba def ko jaam amul benn géwél booy def def def ko jaam du am jamais obligant jamais géwél du doon jaam mukk gor rek lay doon waaw moom rek moo ko mën a taxaw nag wax ko à part moom keneen mënu ko voilà c'est pas parce que je suis griot de père et de maire mais man judduwuma fekk suma yaay wëy judduwuma fekk suma yaay di wëyaan déedéet dina ma juddu fekk ñuy daan seen doole seen maam itam dañ doon daan seen doole bon Kahone bon mun naa ne Kahone c'est le centre du Saloum quoi c'est le capital du Saloum Kahone mooy capitalu Saloum soo déggee ñu ne Saloum ñaari néeg la ñetteel ba mooy waañ ba waañ ba waañu buur la buur ba buur buuri Saloum saalum ñaari néeg la mooy saalum ceddo ak saalum cëriñ saalum ceddo saalum cëriñ mooy ñooro ñooro dirib mooy saalum cëriñ les Maba Jaxu Ba ñee kii ñoom ñoom ñoo fa nekkoon Sayer Mati Ba ñoom ñoo fa falu ñoo fa nekkoon comme buur foofu mooy saalum cëriñ loo tax ñu naan saalum ñaari néeg la saalum ceddo mooy ñeneen ñi kawoon ak environnement gànjaay gànjaay comme gànjaay mooy yem ci kawoon gànjaay province la woon buur saalum bu fal bu falu woon dafa doon am ay ay ay gouverneur am yu mu doon fal muy buur Gandiaye buur Jooñig ah bëlëb Ndukumaan comme dans le Ndukumaan euh, Kaffrine yooyu yëpp ci province su Saloum la bokkoon capital bi mooy kii mooy waañ bi ko mooy waañ bi waañ bi waañi buur la buur ba mooy buuri Saloum cest à fii lañ doon séddalee ku bugg am cër fii mooy fii doon séddalee mooy waañ bi waañ bi kan moo ko yore buur buur bi kan la buuri Saloum waaw loolu mooy kawoon kawoon nag nekkoon royaume boo xam ne tamit nit mësu koo yàpp parce que yàlla héros national muy Lat Joor Ngoone Latir Jóob amul fu mu jaaru bu ñëwee day ñëw jël sa soldaar ya ca gën a baax yóbbu leen de force ou de gré sauf kawoon kawoon rek la jëlee wut nit ñu dem xare ji kawoon waaw xare bi mu waroon a xare ak euh, Pinet Laprade xeex bi mu waroon a xeex ak tubaab bi dañu jaar na fépp jël ay soldat ba des ko bi mu ñëwee fii daf fi fekk ku ñu wax Buur Saalum Semu Jimit di ko ooyee Njarka c'était le tigre Njarka moomu il avait il un regard hypnotisant parce que jot jot jote na fekk tubaab tubaab bi attends bëggoon nañ koo déporter ça n'a pas réussi tax ñu tuddee ko Camp Semu Jimit bi c'est pas du hasard parce qu'il y avait un colonel Edgar boo xam ne nekkoon na fii jànkuwante ak Sékou Djibit parce que daf ko ogoon ne ko bu man fii kenn du fi jëlee impôt di ko yóbbu impôt bi yëpp dañ koy dagg ci digg bi nga jël yóbbu ma jël bàyyi fi mu ne ko nag du am damay yóbbu lépp mais bi mu jàkkanteeg moom samp ko ay bëtam daf ko hypnotiser on ko mystiquement bi mu ko ne jàkk bu la ne woon jàkk jàkk jàkkaarloo seen bët yi ñeent lépp loo yore day wadd yar ko moomu nag tubaab bi nag ne dañ koy jël nag déporté ko ñu jël si ko yóbbu yóbbu ko dugal ko ci bateau ba bateau ba mun wala dem mun la bouger moteur yàpp yaa ngi tàkk taal nañ moteur yëpp accéléré bateau bi munul dem ci la nag labbe yi xam nga yàlla da leen may xam-xam mu ne oo tubaab bi da ko kii wàcce leen ko munu leen ko yóbbu bu wàccee bato bi nga xam ne bato bi dara nekku ci wàcce leen ko bato bi bàyyi ko mu dem te ngeen neexal ko mu dem nguuram ñaari at moo ci des bu ngeen ko jéemee xeex ci ñaat ñaari atam yooyu nag mu faagaagal képp kuy tubaab ci waxuma la Afrique waaye waxuma la Sénégal mais Afrique tubaab dootu fi taxaw mu ñeen leen ko mu dem ci lañ ko wàcce jox ko xaalisu ngóorlu may ko may ko ay ay napp may ko lu ne <coughs> jox ko ko mu ñibbisee ak moom ñu bàyyi ko mu mottali nguuram. le fleuve Saloum dafa romboon Gowon romb île de Guillaume Keita le gouverneur Noiro dem na ba Kaffrine ñu wan ko garab yoo xam ni embarcation yi tuddoon ay contre ak ay aviso bu ñu woon ci leen leen daan takk kon euh, mën nañu wax ni euh, pooru Kaolack bi à partir des maisons de commerce et des grande sociétés coloniales yi daan ñëw di takk ñi def commerce au mouillage dem na ba nga xam ni ñu defar port bi mais travaux de construction de quai bi n'avaient pas encore commencé te loolu yëpp ko na ko waral alors di nga gis euh, ku mel ni taawu Maba Jaxu Sayer Matiba songu na fa ci buur Saalum yi mbettum kawoon nga gis ni tamit yenn buur Saalum yoo xam ni taxaw nañu fa def nañu la propension et l'extension du territoire de kawoon waaye daj yëpp gi mooy Maba Diakhou Ba mi nga xam ne moom fii dans le Saloum boo gisee xeex yi fi daan am ak xare yi fi daan am ñetti opposition tripartite la ñi nga xam ni mooy ceddo yi sëriñ si ak tubaab bi parce que comme nag dañu nekk ci kawoon dinañu wax rek ne bataille de Ticket la bataille de Tànnabaar ah yooyu yëpp buur Saalum yee ko fi doxal mais bataille bi gën a wér nga xam ni moo doxal l'islam bu ñu ko ñàkkoon quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans yi ngay dégg doo ko am mooy la bataille de coto le 30 novembre 1865. que à partir de 1900 bi ñoom ñaaw boo Gédel ñoo ñëpp jàllee gis nañu ki nga xam ni mooy de Diouf benn la woon Fodé jël na ko moom moo régné entre 1924 ba 1968 mu nekk le dernier Buur Saalum. reconnu par l'autorité coloniale ensuite am nañu mbay Badiane ah, mbay Badiane jógu fi ba ah, mbay Badiane sax am nañu Mor a Ndaw ah euh, nga ñëw ba mujj gi daal fi mu toll ni Ibrahima Ndaw ak Gédel Mbodj mooy ñaari tendance yi nga xam ne ñoo koy xëccoo arrondissement un arrondissement arrondissement un bon arrondissement que woon amoon arrondissement bi donc chef lieu d' la woon bon bi mu fi jógee lañ ko érigé en commune en 1996 waaw premier maire bi njëkk a falu fii mooy Ousmane Gueye en 1997 de ki ki ki ki fi mujj ki fi kii en 2009 mooy Ousseynou Senghor ba 2022 Fatou Sène Diouf moo ko utu moo mooy l' maire de Kahone. bon am na parce que am na ñetti Kahone daal am am na kawoon ci quartier yi kawoon 1 Kahone 2. nekk woon trois après nga doog a ñëw nag def Màkka Njaay def Ngokare def Daamu Ngaay def Daaru Habibi def euh, fas Kawoon def Kanda Fodé Bayo un Kanda de Bayo deux Kanda Amady Diago un Kanda Amady Diago euh, extension waaw quartier yooyu ak Njolof Fass Njolofeen quartier yooyu ñoo ëmb Kawoon kon bu ñu jàppee Kawoon muy euh, dëkk boo xam ni euh, capitale historique la culturel buur Saalum bu mas a falu fa nga daan toog ba sa jeex waaye nag ku dem ci kër buur yi nañu raase waaye mën nga gis ni ko woon ku mel ni buur Saalum Sémou Djimit Diouf fa la ñu ko suul ma nga nekk foofu ca club France Liban ay terrain de tennis ak yu kenn xamul te Sémou Djimit moom lañ tuddee cantonnement bi mu nekkoon chef de guerre bu mag il a été chef d'état-major de Maba jaxu Ba moom moo meññi fara fara moom la ñu yóbbu à Gorée chez les frères Prolerme mu nekk parmi les premiers bateliers moom ak ñoom Blaise Diagne ay Abdoulaye Seck mari Parcine après ci la génération de Senghor bi ñëwee bi mu génnee àdduna mokk doom ji mu yoroon ma nga fa ko ñu wékkoon ca benn ngéejaat dëkk bi nga ñu tudd Jañel kon war nañu lijjanti fii nga xam ni fa la xabru bi nekk kawoon daal mu ngi noonu buñ ko doon wax duñ ci jeexal dañ ko euh, kii noonu rek d'une manière assez réduite pour cof ci waaye buur Saalum bu nekk ak histoire am bu ci nekk ak gëstoom waaw kon daal mu ngi noonu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant wasalaam def na séeréer so mbaro laya séeréer kay o fat jàng ka Chinla Apaval Kayenda